إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bokk jullit yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom bi nga xam ne jullit daa war fu ma toll di ko sant ñi ngi seede ne kenn yeyowul ñu koy jaamu ko dul moom ñi ngi seede ne yonent yàlla muhammad moom dong la yónni woon ngir mu jàngal ñu nu ñuy jaamoo suñu boroom yàlla yàlla julli ci moom ak njabootam ak ña koy roy ba ila yawmi diin mbokk ñi ngi bëggoon a fàttali tey li nga xam ne moom la ñuy tuddee al isra wal miraj ñu tudde ko guddik rañaan ga la tax ñu koy fàttali du ne dafa romb barki démb comme ni ko ñenn jàppe mbir la boo xam ni boroom xam-xam ya wuute nañ ci ban at la am wuute ci ban weer la am waxuma nag wuute ci ban bis la am waaye yow jullit lañ cay jàpp mooy mbir la boo xamee ne moom bu amoon la tey benn waaye ngi taxaw xamoo ban añu la judd waaye xam nga ne bis mas naa am mu judd jeex na kon ñëw na ci loo xam ne nii dëppoo la ci saxaaba ya ak boroom xam-xam yi am na bis ci bis yi suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni jibril ci moom mu indil ko benn waruwaay bu ñuy wax buraaq boo xam ni moo ëpp mbaam te yeggul ci fas buraaq boobu vitesse bi mu doon daw mooy fu bëtam tege rek tànk ba tege na fa daanaka mooy xaw a nuroog vitesse lumière mu jële ko makka ci benn guddi yóbbu ko masjidul aqsa te Palestine gannaaw ba suñu borom sant jibril mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéege ko ci asamaan yi juróom-ñaar ñu romb asamaan yi ba ba xew-xew ba di pare waaye mbokk xew-xew boobu luñ cey jëkk a jànge mooy yàlla defaloon na ko ngir dalal xelam ngir fayee ko coono yoo xam ne dundoon na ko sallallahu alayhi wa sallam lu ëpp fukki at mu nekk ci màkka façon lor bu ne ñu lor ko ko lor ko ay saxaabaam ci jëmmam ju tedd ja ca deram bu sell ba lu nañu wax ko ko lu nañu def ko ko ba xajatul makka mu ñu ne dem taif jege 90 kilomètres ngiree sàkku ji fa ndimbal ànd ak ka nga xam ne nii mooy zayd ibnul xaarisa ñuy dox guddi di dox bëccëg ba yegg taif mu fëgg mbooleem kër kilifa ya fa nekk woo leen ca la nga xam ne mooy tax ñu texe àdduna ak àllaaxira ñoom ñépp ñu gàntal ko yéemuñu ci gàntal ko waaye ba mu génnee dëkk ba ji dem ñu boole ko ak seen dof ya ak seen xale ya ñu ko yuuxoo di ko sànni ay xeer ba tànkam yi di gas-gasi ak deret ci koo xamee ni nii mbokk julit mooy kii gën ci ka mas a teg tànkam ci kaw suuf loolu it mbokk julit buñ la toroxalee daajale tëj kaso toroxal la duma la toroxal la génne la sam réew du loolu muy problème lii problème mooy lan nga def ba loolu am su dee ne loolee yaa ngi ko am ci sàkku ngërëmal yàlla bégal jaaroo mukk fa yonent yi jëkk yee jaaroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana melal lenn ci yonent yi ko jiitu woon ñoo xam ne seen xeet dóor na leen ba seen bopp yo toj ñu sangoo seen deret waaye ñu yëkkati seen loxo ay yàlla jéggal leen dañoo xamul rek looloo tax keroog bu mu jógee Taif yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni na ko jibril alayhi salaam jibril na ko ay muhammad kii ma àndal mooy malakul jibaal moom la yàlla jox montagne yi bu la neexee léegi taayif gi ñu daal di koy rajaxe sànni fi montagne yi ñu rajo ko yonent bi alayhi salaam na ko déedéet jibril ñaanal ma sama boroom arju an yuxrija allahu min aslaabihim man yabudu allaha waxdahu laa yushriku bihi shay'a maa ngi yaakaar ne d'accord ñi weddi nañ ma waaye yàlla dana génne ci seen ndigg yi ñuy jaamu yàlla duñ ko bokkaaleeg dara ca loolu mbokk mooy aji wootekat kum mën a doon la ngay dégg ca woote ba la ngay daj ca woote ba ngalawaay loolu ba mu la yitteel na la yitteel woote bi ci boppam ndax gannaaw coono yi yépp woote ba dana am résultat su dee am na loolu rek mooy jubluwaay bi même bu doon dañ laa rey ana ñaata yonent lañu rey kullama jaahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtuluun suñu borom yàlla nee na bani israil heure bu yonent ñëwee ci lu leen neexul benn wàll ga rey nañu leen benn wàll ba ñu weddi leen waaye teewul la yonent yi doon woote moom mi ngi sax loole ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk gannaaw lii nag la ko yàlla subhanahu wa taala jël di ko dalal xelam di ko teral la jiitu mooy da koo booleeg ay jinne qul uhiya ilayya annahu stamaa nafarun min al jinni mi ngi noonu yàlla yónnee ko ci ñoom ay jinne ñu déglu ko bañ ko dégloo dégg alquran ñu daal di koy gëm dem ci seen xeet woo leen ne leen kaay leen gëm yonenti yàlla bi yàlla jëkka dalal xelam ci ne ko jinne yi day am na ca mbooloo ñu bari ñu la gëm même bu dee waa Màkka weddi nañ la waaye mbokk gannaaw loolu suñu borom yàlla continué na nattu ya ba indi natt yoo xam ne moo gën a tar ci moom la ko makka doon def te mooy yàlla xëy jël ka nga xamee ni nii mooy abi taalib abi taalib bi nga xam ne naam yéeféer la woon waaye baayam la woon féetewoo ko fépp waa makka ñemewuñu woon dal directement ci yonent bi tant que abi taalib mi ngi dund waaye yàlla xëy jël abi taalib mu nekk tiis bu mag ñu teg ca lu matagul ñaari weer suñu borom jël xaritam ba soppeem ba soxnaam soosu nga xam ne moo ko dalaloon ci biir dalal ko ci bitti teg alalam ci loxoom yàlla jël ki nga xam ne mooy Khadija bintu Xuwaylid Khadija moomu nga xamee ne nii mbokko moo sutaniiroon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca la nga xam ne mooy waxtu yu jëkk ya at boobu ñu tudde ko xam amul huzn ca mooy atum tiis ma lii lépp it lu mu lay jàngal yow jëlit nga la waaye ay natt yu tegaloo sa kaw ba mu tax nga saalit mukk bu mu tax nga jàpp ne yàlla dalaa bañ wala nangam aki nangam déedéet foofu la yàlla di jaar ak ay ay ay ay yonentam fa la yàlla di jaar ak nit ñu baax ña loolu tax yonent bi alayhi salaam daan wax ashaddu nnaasi balaan al anbiya thumma al amsala fal amsal ña gën a tar natt bokk na ci yonent ya gannaaw ba ña méngoog ñoom ci jaamu yàlla ak ña méngoog ñoom ci jaamu yàlla mbokk natt yi yëpp bi mu taree ba jéggi dayoo ca la ko suñu boroom wërsëgal mu def al isra wal miraj jóge na makka ànd ak jibril dem na baytul muqaddas jóge na fa yéeg ci kaw asamaan yi asamaanu benneel ñaar ñett ñeent juróom juróom benn ba juróom ñaari lu asamaan mboole mi asamaan suñu borom boole na ko fa ak yonent boo xam ne moo ko teeru ak malaaka ya ko fay sargal gàttayu xutba bi moo tax ñu tënk ko mu dem suñu borom yàlla di ko yéege di ko yéege ba baa yóbbu ko fa nga xamee ne nii moom mooy sidratul muntaha ca mooy place boobee nga xam ne amul benn jaamu yàlla boo xamee ne nii daana dem ba mën a paase foofu la ko féete kaw mooy kiiraayug borom bi jalla wa ala suñu borom yàlla subhanahu wa taala déeyoo fa ak ab yeneen tam wax ko fa lam ka fa wax doonte ne la ca gën a màgg ca gën caa itteel jullit ñi ba ilaa yawmi diin yàlla ne ko ay muhammad demal wax sa xeet bés bu nekk nañuy julli juróom fukki julli yonent bi alayhi salaam dellu si romb ka nga xam ne mooy yonent yàlla muusa alayhi salaatu wassalaam muusa alayhi salaam ne ko ah muhammad maa ngi lay ñaan dellul ci sa boroom mu mu woyefal ko ndax man kat maa la mujj nekk yonent xam naa lan mooy jubluwaayu doomu aadama yi yonent bi alayhi salaam dellu ci yàlla suñu borom yàlla wàññi yonent bi delluwaat ci Muusa mu yonent bi delluwaat ci Muusa mu ne ko ay yonent yàlla Muhammad dellul yàlla wàññil la yonent bi di demee ko dikk ba mu des juróomi julli mu ñëw na Muusa suñu borom yàlla day def na ko juróom mu ne ko waayu Muhammad dellul waay yàlla wàññi mu ne ko daal Moussa rus naa dellu ci sama boroom loolee mu ñuy jàngal mbokk julit yow mi nga xam ne dangay doog a dugg ci mbir ña la ca jiitu del jël seeni conseil ca lool it di lu ñu yóbbante suñu ndaw ñi nga la wa yow ndaw lépp loo xam ne daa aju ci sa diine bala nga caa jël position bala nga caa feeñ laajal ñi nga xam ne ñoo la jiitu ci diine jooju jiitu la ci da'oo boobi nga xool lan moo ci seen xalaat ndax ñoom dañuy xam loo xamul am expérience boo xamul tubaab yi dañ naan l'expérience fait la différence que la jiitu ci mbir lam cay xam doo ko ca xam waaye it ñu wane kersa ga yonent bi alayhi salaatu wasalaam amoon bi mu tontoo loolu yonent yàlla Muusa ca la ko borom bi jàll wa ala woo maa yubaddalul qawlu ladayya ay muhammad samay wax du soppeeku demal wax sa xeet nañuy julli juróomi yoon ku julli juróomi yoon danaa considérer ne julli na juróom fukki julli mbokk jullit mi ngi noonu dañoo waroon di julli juróom fukki yoon par bis daanaka mën nañu wax ne tous les trente minutes wala tous les vingt cinq minutes dañoo waroon a julli suñu borom yàlla wooyee fal ko def ko juróomi julli xamal na kon julli gu nekk mi ngi taxaw valeur fukki julli nga xam ne la gën a màgg ci say ju àdduna ji mooy julli mboolem yeneen jaamu yàlla yi yàlla nga ko farataal ci kaw suuf julli yàlla yëkk ci ab yonentam ba ca kaw asamaan muy wane ne mooy priorité ci luy priorité moo jiitu lépp képp koo xam ne sàggane na ko mënul defal yàlla lu yàlla gis amul kuy sàggane julli ba pare defal yàlla lu yàlla gis del génne milliard zakat del aj makka del lu la neex defal waaye doo julli mënootoo defal yàlla lu yàlla gis loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax fonk seen julli fonk loo ko la nga xam ne mbokk mooy seen jaboot mbokk ci tukki bi màgg boobee suñu borom yàlla nee na laqad raa min ayaati rabbihil kubra suñu borom yàlla won na ko lam déggaatee gannaaw ba mu nekkee ilmul yaqin xam-xam bu wóor boo xam ne ñun ñëpp gëm nañ ko ajjana am na safara am na waaye suñu borom yàlla won ko ajjana won ko safara won ko fa ay kawtéef ba nga xamee ni nii yonent bi am aynul yaqin bokk na ci loolee mbokk julit yéen suñu mbokk jigéen ñi ca góor ñi topp seen gannaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci tukki bu màgg boobee nga xam ne ay xutbay xutba la laajoon waaye am na benn place bu mu taxaw benn xet goo xamee ne nii dikkal ko gu neex goo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam musul xam lu mel noonu mu ne waaw jibril xet gi mu fu mu jóge mu ne ko lii de mi ngi jóge ci machita bintu firawna mooy ki nga xam ne moo doon létt doomu firawna ja lan moo ko waraloon mooy bis day létt doomu firawna peñe ba daal di wadd mu ne subhanallah sell ñeel na yàlla jànq bi wëlbati ko ne ko yàlla ban ngay wax sama baay mu ne ko déedéet sama yàlla ak sa yàllay baay jànq bi ne bëreet dem dugg ci pale bi woo pappaam firawna ne ko kii mi ngi jaamu beneen yàlla bu dul yow ñu jàpp machite yeew ko ne ko da ngay génn ci li ngay wax mu ne du ci génn mukk firawna jëfandikoo stratégie bi gën a bon jël ay doomam ne seen sa doom yi laay lakk rey leen benn par benn ba nga jeex wala nga génn ci diina ji mu ne ko duma ko def mukk mu daal di koy jël doom yi benn par benn benn par benn di dugal ci ay kaw diir yuy yuy bax ñuy dee ci kanamam soxna si sax ci laa ilaha illa allah ba baa liir bi mu yoroon garde yi jël ko mu ne waaw xanaa kii amul amul lenn luñ ko war a toppee liir bi wax ak moom na ko yàlla li yaay yaay li nga nekk mooy dëgg saxal ci li nga nekk ñu sa ñu sànni ca liir ba gannaaw ba la wax firawna te ndax bu ma la ñaanee dara dag ma ko may mu ne ko waaw mu ne ko boole ma pax bi may suul maag samay doom mbokk loolee lu mu ñuy jàngal mbokk diine lislaam mooy la nga xam ne moo jiitu ndey ak baay moo jiitu doom ca àdduna bi kërug jaaruwaay rek la maachita boobu bu bu ko firawna reyul woon dana dee bu ko firawna reyee dana dee loolu ëpp na 4000 ans la nga xam ne ni mooy histoire boobi génération yi fi der xamuñu ni ñu toll loolu it muy wane ne yonent bi bu jëlee misaal ci jigéen boobu ana yéen góor ñi ndegam jigéen moo war a sax ci diineem même bu dee dañ ko cay rey même bu dee dañuy soode ay sox ay doomam ci kanamam boole seen loolee daf ñuy wan mbokk suñu diini dañ cee war a sax mu jaral ñu suñuy bakkan suñu alal jaral ñu suñu njaboot lenn ci àdduna warul dox suñu diggante ak suñu diine joojee mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcce na ñëw ca delluwaat ca masjidul aqsa bi nga xam ne yahud yu bon yi tey jël nañ ko ndar képp ko nangu ko ci loxoy jullit ñi suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam yàlla dekkal mboole mi anbiya mboole mi yonent mu daal di leen di jiite ba mu leen jiitee ba pare ca la fa jógee doog a delluwaat makka loolu lum ñuy jàngal mooy diineem ji mooy diine bi tëj diine ji waaye diineem yi mooy diine bi kawe mbooli mi diine te it loolu day wan la suñu borom yàlla wax borom bi yàlla nee na képp ku jël beneen diine bu dul diine bi ma yónni sama yonent yàlla muhammad yowmal qiyaama duñ ko ko nangul te dana bokk ci ñuy perte loolu muy benn yonent bi alayhi salaam firi ko daa di ne xam leen ne day walazi nafsu muhammad bi yadi laa yasmau bi ahadun min hadihi l umma yahudiyun wala nasraniyun summa yamuutu walam yu'min bi lazi ursiltu bihi illa kaana min ashaabi nnar rawahu muslim xam leen ne day du maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom amul kenn ku may dégg yahud nga wala nasraan ba pare nga bañ maa gëm lu dul boo dee da ngay doon koo xam ne nii ci nitu sawara nga doon loola yow julit bu ci sikk sàkka ñaari diine amul kaw suuf ñetti diine amul kaw suuf benn diine moo nekk ci kaw suuf mooy diine lislaam bi yàlla yónni woon suñu yonent yàlla muhammad ci ngeen war a gëm war caa woote képp ku ngeen ciy woo lii mbokk dañuy gis ne benn tënk la bu ndaw a ndaw ca la nga xam ne mooy isra wal miraj lañ cay jeexale rek mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee makka daa di wax xabaar bi xabaar boobee bokk na ci ñi ko yëg abu jahal saay-saay bu bon ba avant mu yëg ci aboubacar mu riir dem ci aboubacar ne ko nag tey nag lay xam sa waaju lu mu mas a wax rek da nga ko gëm waaye nee na guddig bi jóge na makka dem masjidul aqsa dellu siwaat ñun ñoo ngi koy def ñaari weer weer ala weer retour moom mu ne benn guddi la ko def waxumaa nag nee na yëg na ko waasamaan waaye loolu rek ndax da nga ko ci gëm aboubacar ne ko ah su dee moo ko wax day wax na dëgg muy ñaari mbir yoo war a jàpp yow julit heure boo xamee ne waxi yonent bi ñëw na jëkkal xool ndax yonent bee ko wax wala waxu ko Aboubacar tëbul rek na ko wax na dëgg dane bu dee moo ko wax wax na dëgg tey jii mbokk boo xoolee yonent bi alayhi salaam li mu wax nit ñi xam ko liñ ko waxal ci waxu ko moo ko ëpp téeméeri yoon ngeen bàyyi xel ci loolu képp ku naan xaala yonent yàlla nañu fekk ne jox nañu tegtal yam jële loolu waaye nga la waaye bu dee xam nga ne lii moom yonent yàlla bi moo ko wax amul lenn loo ca mën a teg lu dul sami'na wa ata'na dégg naa wa topp naa dugg na sa xelam duggul sa xel neex na la am neex na la amatoo droit jël lenn looy tànn ci waxi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk kon lii tënk la bu ndaw la te la nga xam ne mooy al isra wal mi'raj la ko yàlla subhanahu wa taala ubbee mooy subhaana allazi asra bi abdihi sell ñeel na ki nga xam ne moo rañaanal ab jaamam muy wane ne yow julit gëmal foo mën a toll subhaanallah yàlla mooy ki sell ki nga xam ne lu mu bëgg a def rek mën na ko innahu ala kulli cheyin qadir waaye subhaanallah mooy ki nga xam ne moom dong moo yeyoo di ko neex di def la ko neex àdduna ak alaxira amul kenn koo xam ne nii fekk na ko ca du yonent du malaaka du kenn ku mën a doon yal na yàlla wërsëgal ñu ñu gëm lam bëgg ñu gëm ko yal na yàlla wërsëgal ñu ñu jëfe lépp lu yonent bi alayhi salaam jàngale yal na ñu yàlla wërsëgal ñu doon ñuy taxawal julli yal na yàlla wërsëgal suñu njabooti doon ñuy taxawal julli yal na ñu yàlla dajale ci àddinaam yu kawe ya ñu ànd fa ak yonent yi ak siddiqina ak shuhadaa ya allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين